Thank you. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna tey nag ñu ngi marché asalem yeneen ci seen émission jaba marché asalem nag mu ngi mel ni tànn biiru mbott ngoog ngoog gi bari na lool te événement bi ñëwagul xam ngeen nag dañuy dugg ak yéen ci biir ak ruq yeeg ruqaat yi wan leen bagage comme ni ma leen ko waxee woon maa ngi yéen xeex bu dul jeex la tey nag ñu ngi fii ci seen mercerie ci bisi bitiku bitiku sëñ Bas war a ñëw nag gisanteeg moom waxanteeg moom ñu dugal leen ci garniture yi xam ngeen ne ñaw léegi kenn defatul ñaw daamine daamine dafa dañ ko tegee nee dañuy ñaw jël ko garniture ko ba mu baax mu fashion am classe rafet nga mën ko sol mën a dem ak moom mariage ngénte ak fu la neex léegi nag dañuy ñëw ak yéen ci bitiku seen misteri fekk fi sëñ bas am lu ñu waxtaan ak moom am lu ko laaj mu wax ñu tegtal ñu garniture yu rafet yi fan lay jóge ak ak bagage yi yu sew sewaan yi ci biir yëpp ñu xool nan dañ koy doxalee léegi nag dañuy dugg ay ca les ñu dem laaj siyaare noo def naka dóor yi mbaa lépp jàmm ah, tey nag dañ la seet si woon fii nga xam ne mooy seen mercerie bëgg a xool ambiance su tabaski bi ak événement bi ni mu nar a demee ak yu bees yi nga indi garniture yi bees yi génn ak yi xew yi nga xam ne mooy tendance yi nga xamante ne moo xew ci jamono ñu lay laaj yow nan nga gisee tabaski bi événement bi ndax mu ngi dox ndax clients yi ñu ngi. waaw affaire yi ngi dox bu baax ñu ngi sant ñu ngi dox parce que affaire yi moom ay dafa am yoo xamante ñoo koy liggéey fii nag ñun moom euh, euh, côté bépp la ñuy doxee. dëgg la waaw dañuy defar gandir. mu mel ni bitig bi mooy bitig bi gën a siiw ci marché HLM marché HLM bëri na bitig waaye bitik yi bari na waaye wute na ndax bitig bi ku bëgg lu baax ak loo mënti bëgg ci garniture boo koy seet boo ko gisul boo ñëwul fii di nga ko fi fekk ndax bitik boo xamante la tubaarkàlla macha allah lépp loo bëgg ci xeetu garniture ak broderie tubaarkàlla macha allah mousseline yi bouton yi fil bouton tout lépp a ci biir boutique bi soit disees bi lépp loo soxla daal dafa ni mu ngi fi waa daf fii lañ koy defaree doomu réew mi ñoo koy liggéey ñoo koy créé fii di ko defar moo ngi yëpp waaw jógewul siin fii lañ koy créer liggéey bi da sol ba doyal may sa jàmmu sol ko àndal bu defar rek day ànd. xoolal lii dafa bari dafa mel ni booy feccaani sa dëkk dafa tëggul buñ fii ñu nekk ci suñum Sénégal suñum réew lu luñ fi mën defar amul lépp fii lañ koy liggéey xoolal lii lépp senegal lañ koy liggéey mu rafet lool. nekk bitig boo xam ne tubaarkàlla macha allah bitig bu mag la bitig gënu koo mag fii ci asalem jëy maar gëlal ma lii waaw dafa mel ni dama fa gis benn Adja mu dugg fii ci bitigu sëñ Bas seen mercerie di ut ci garniture te moom dafa mel ni moom dañ koy laaj lan lay liggéey ndax fi ñëpp fi fii ñëw ndax ku bëgg lu baax rek do romb bitiku sëñ Bas Bas seen messeri ajaratu nande ma ngi ni ma ngi sante yalla mbaa yaang ci jamm ma ngi ci jamm bu baaxa baax. dama ah, damaa ñëw gis la fii ma sha allah nga jongama lool nak tubaarkàlla nak def léger rek ñëw di am loy wut ci si bitiku sëñ Bas nga xamni ku bëgg lu baax fi ngay ñëw rombati réccu la yëkkati ñak ku ci sañse lu rafet rek bitiku sëñ Bas nga ko jëndee ma gis la fi am kàddu yu ma la bëgg laaj lan moy sa métier lan ngay liggéey da ngay jënd pour ñu ñaawal wala wala kat nga ah man damay ñëw di jënd si ndax xam nga bas moom day jaay lu baax waaw vrai qualité lay jaay te lépp lu muy jaay nag fii lañ ko liggéeyee Sénégal baat yi bari na trop mais baat yi ute na mm. fii lañ ko liggéeyee am na multicolore am na doré am na argente am na noir am na rouge bleu turquoise te xam nga ñun instant bi dañu nekk ci à donc il faut que ñuy xool euh, kiy jaay garniture yu baax yi mm. ak perlage bi surtout perlage bi ndax instant yi perle dafa xew donc sooy jënd garniture da ngay dem ci magasin buy jaay lu rafet garniture originale ak perlage bu baax nga jënd ko man nag couturière laa ci kaw laay ñawee looloo tax ma ñëw fii macha allah sëñ Bas ak waa HLM xeex bu dul jeex la jarta tekki ay jajj te xeex dëju baaxu ci da ngay taxaw sëñ Bas a ngi nii ku weddi nag da ngay dox ñëw ba marché HLM ci ruqu naar yi fa ñuy jaayee soow mi joxe ne ay numéro téléphone am affiché nañ ko da ngeen a ñëw gisanteeg sëñ Bas tubaarkàlla macha allah lu baax lu rafet lépp lu fashion fii la am ajaratu ma gis la nga rafet lool jonga ma xanaa géwél nga waaw dama di géwél nag looloo tax xam nga ah. looloo tax rek ma simple lu nii tey ci été bi rek ñëw daal ne xaaral ma liggéey ndànk bëgg naa sa jikko géy maar ay ca let's go <laughs> seet uh, nii laaj ku bëggoon ñëw fii ci boutique bi marché HLM nan ngay def ba ci boutique bi léegi danga ñu koy wax jox ñu seeni numéro téléphone ndax fii nga toog ci sa boutique mën nga jaay sur internet toog fii joxe say numéro nit ki def commande am jël nga jël yu commande bi yóbbul ko ba fa mu dëkk mu jot ko te du du jug du dem fen ndax loolu mën na nekk. nekk foo mënti nekk rek mën nañ la yónnee say euh, kii commande loo soxla rek ñu yónnee la ñu ngi nekk euh, centre commercial euh, Elisabeth Diouf ci ruqu naar yi rek. léegi dégg nga sëñ Bas nee na dañoo bëgg soow bëgg njar yi bëgg yu neex léegi nag ku ñëw naar yi boo ñëwee foofu rek di gis léegi ñu lay laaj sëñ Bas sa numéro téléphone yëpp nga joxe ko ñu mën ko afficher ci sur internet bi seen kàddu képp ku la soxla bu mënut déplacé wu mënut jóg ñëwal boppam dinañ ko dinga ko jaay mu ñëw jot ci lépp ci jàmm ci barke Serigne Touba ayca. suñu numéro mooy 941 74 16. beneen bi mooy 647 54 62 waaw loolu moom boo ñu ci woowee incha allah di ñu jot lii mooy kart bi waaw mooy numéro bi incha allah boo ñu woowee rek di ñu di jot. ay ca waxoon naa leen ko kuy wàll yaan sa dëkk tëggul fii bitiku sëñ Mbas ci marché HLM seen métserie lii ñu leen fi wan lépp fii lañ ko liggéeyee ci Sénégal Sénégal gii doomi réew mi ñoo ko liggéey. du chinois du cing-cing du dara fii lañ ko liggéeyee ci Sénégal mu nekk lu mucc ayib lu rafet loo xam ne présentable na mën nga ko sol mën nga ko présenter ci ngénte yi mën nga dem ak moom mariage booy xew sax ci sëñ bas ngay ñëw mu jox la ci garniture yu baax yi nga xam ne moo xew nga daal di defar ba mu baax mbokk yi wax naa leen ne leen jaba du yomb man ak yéen xeex bu dul jeex la fii lañ nekk ci marché HLM ñëw seet si sëñ bas mu won leen lu bees yi nga xam ne moo xew mooy tendance tubarkalla marché asalem nag moom nee naa bu doon jigéen di jabar awalay doon ndax marché gënu koo rëy ci ci Sénégal ñëpp marché asalem la ñuy ñëw ku bëgg lu baax fii ngay ñëw benn nag émission lañ dooragum ni ak yéen des na lu bari marché asilem fi mën nañ fi tourné lu dul jeex garder leen rek toog seen kàddu di xool luñ fa dugal luñ fa tëmbal ngeen ñëw xool sëñ Bass a ngi nii yéen a ngi nii ay ca ñëw leen ku bëgg lu baax na ñëw xool numéro téléphone yi affiché nañ ko ci nga xamante ne mooy écran bi bu ko defee ngeen ñëw seet si ko marché asilem fii ngeen ànd ak moom defar ba mu baax marché asilem nag nee naa leen sànq sama gars yi mu ngi mel ni mbaxa tànn béeru mbott ay ca let's